pas de vous abonner et activer la cloche de notification. GNV, la grande nuit des valeurs, quatrième édition, avec le géant du live, Mohamed Oussekimelo Boussiri Moussavasi. Ça sera le vendredi 9 décembre au Grand Théâtre National Doudou Kumbaros. Cette édition est dédiée à Mam Cheikh Al Maktoum à l'image du capitaine. Sekimelo Loach. Je dem le dal ci maire ci ma bëgg wax ci ministre de l'intérieur day xelam parce que mon su mon ni ministre de l'intérieur mom am karangé mom té may dégg amul ku fi xalaat que ñëpp mën jël tey gànnaay dox ministère de l'intérieur dox nank ci couloir yi jël yéeg ci bureau ministre de l'intérieur intérieur ubbi bunt bi jàkkaarloo ak ministre de l' intérieur dóor ko dóor ko ba fetal moom su jàppee ni loolu mënu ko dal te mu jàpp ni loolu mën a dal maire de Dakar day nax boppam lu tax may insister ci loolu parce que ñu ngi viser suma sécurité parce que pour ñoom lijjanti nañu li di sécurité Ousmane Sonko dañuy nax seen bopp parce que nag Ousmane Sonko première sécurité est d'abord Yalla. ensuite du Sénégal top si te kooku moom gisuguma ministre de l'intérieur dit lay péché, pexe ba lijjanti loolu mais insister ci loolu parce que nous dañu convoqué qui dit directrice de piscine olympique piscine olympique nous xam nañ que mairie de Dakar mooy géré piscine olympique ñu convoqué ndaw soosu nekk yow yaay directrice piscine olympique mu ne leen waaw man man la ñu nekk yow ci piscine olympique dafa am ay ñit yu fa nekk di fa pratiquer ay arts martiaux ñu ne ko ñu ne ñu ne kooku ñooñu est-ce que da ngeen am contrat ak ñoom est-ce da ngeen am convention bu leen di may. ñuy ñëw ci piscine olympique boobu il faut pratiquer yenn arts martiaux yi ñu dem ba utiliser yenn expression yi te dañ ko convoqué fu ñu convoqué woon ñoom François mankabo mooy sûreté urbaine te may ñaawlu seen taxawal parce que waa sûreté urbaine ñu may dégg suñu bëggoon xam lu xew piscine olympique maire la ñuy convoqué du ñu convoqué directrice piscine olympique parce que directrice piscine olympique ab maire a ko fa teg donc su fa amoon ay activité ngeen xam ne ni yoon daf ko tere maire la ñu ne woon convoqué laaj maire est-ce que piscine olympique am nga fa sañ-sañ di fa may ay ñu am yenn activités yi activités yooyu nag ñoom dañ ko bëgg à la limite considérées comme des activités de force spéciale. Il faut qu'on apprenne à être sérieux au Sénégal. wut Barthélémy Diaz wala am lu ngeen namm ci Barthélémy Diaz di yonal ba tey yàlla wanugu leen taxul ngeen nar def n'importe quoi ou de personnel dans du n'importe quoi. piscine olympique amna ay fédération yu beur yu fa nek, yu fa pratiquer cette activité yi activité bu ñuy ciblé ñoom ku ko fay pratiquer du ma tudd turam parce que je n'ai pas le droit de divulguer les données personnelles wante ñoom waa gendarmerie xam nañ ko bu parce que yam na fa nekk pratiquer activité yooyu moom ci boppam bokk na ci formateur yuy former ay yenn éléments yu GIGN te moom presque depuis cinq ans et man, tout de même, il y a 5 ans de cela, eu mon maire au Dakar donc tey su ñu le di convoquer directrice piscine olympique il faut faire une enquêtes Il faut savoir xam lu tax gens ñi di fa fait ba di fa yenn activités ñuy comparer une ak ay yu force spéciale des am et que la veille de tout cela c'est à dire la semaine dernière le ministre de l'intérieur di génn a communiqué di ciblé ay nit ñuy solo ak di dox ci mbedd bi mel ni ay force spéciale dafa am lu ñuy yoonal ma bëgg a wax ci leer man Barthélémy Dias jegewuma ay force spéciale xamuma ay force spéciale laaluma ci ay force spéciale ñu yor nag suma kaaraange ma bëgg a wax ci leer ñooñu suñuy xëy di liggéey du ñu sol ay ñetti abdu parce que dem ñu julli ji nous suñuy xëy di liggéey duñu sol ay smoking damu ni baali faire. suñuy xëy di liggéey dafa am ay les yu ñuy sol te yooyu képp kuy liggéey ci mbiru sécurité yooyu ngay sol maintenant nag nit buy liggéey day am pour mën liggéey liggéey bu jaar yoon le minimum wax dëgg yàlla nit mu sol gilet pare-balles mënul kooku day aar boppam

des forces de défense et de sécurité ñuy gunge ak di escorter ay nervi ay nervi ba ñuy convoqué Ousmane Sonko rek ci tribunal ba may génn suma kër di dem Ousmane Sonko pour gunge ko tribunal su ma koñ Baobab te waa Baobab may dégg waa guy gi ñu may dégg su ma koñ lépp lépp koñ bi yépp ay nervi la woon mais boobu tamit ministre de l'intérieur gisu ko wante nag dinaa wax ministre de l'intérieur ñaari baat fulla mooy jaay daxaar c'est la dernière fois la dernière fois que neex bi di dugg baobab baobab ñu may dégg fa laa juddoo fa laa yaroo fa laa dëkk te ñàkk ñu jom ñàkk ñu fay man kese man kepp man rek man dom, ma fa dëkk tey ci autorité publique amu fa maire amu fa député mon fa ministre mon fa kenn ku dëkk Baobab bu fa mën a justifié am un besoin de recruter des éléments de sécurité kon ñu fay indi ay nit ku xam fu ma ak cent mètres doxul suñu diggante ngeen di fa jël ay centaines de nervis bi di di au niveau du guy c'est fini loolu dafa amati su ngeen ma de nag na ngeen ko defaat ngeen te ne wax ne vous n'avez pas été averti parce que nag lu ëpp tour dëkk bi ragal dëkku fi dañuy maslaa rek di naxante rek wante kenn du fi maslaa ba ñuy masaale kenn du ko fi man dans ma maison j'habite avec mes parents avec ma famille et avec mes enfants am lu ma dul nanguti man mënu nekk député maire de Dakar mais di dem Ousmane Sonko. suma booru kër ñu teg fa ay yi police yi teg bëtëm gendarmerie di ci teg bëtëm ñu ne ma maintenant man awma droit am ay garde corps loolu doyul ñu ne maintenant suma garde corps yi ñu droit sol de tenue yi doyut ñu ne suma garde corps yi ñu droit sax yor maintenant yenn jumtukaay yi pour mën a liggéey seen liggéey parce que ñoom lu ñu nam ci man xam naa ko wante balaa ngeen dal suma kaw wallaay ma lijjante leen te xam ngeen ma ce communiqué de presse du ministre de l'intérieur c'est de la pourriture ce communiqué de presse il est illégal Antoine ton communiqué de presse il est illégal comme tu n'es pas capable de pouvoir protéger le maire de Dakar que je suis comme tu n'es pas capable de pouvoir protéger l'hôtel de ville qui accueille la mairie de Dakar, qui est la capitale du Sénégal. Maintenant, tu nous sors ton torchon pour venir nous dire que nous n'avons pas le droit d'être escortés par nos gardes du corps. Que nous droit am kaaraange que nous avons ànd équipement de protection individuelle que nous avons def da ngay

ñii lu leen troisième mandat jaral wax dëgg yàlla nit bu gëm yàlla mënul demee nu ñii di demee mënul nekk moo tax mbokk yi wax naa leen lépp lu may dund depuis neuf mois ci mairie bi amul kenn ku bokk ci suma cabinet bu fi am tey salaire du chauffeur du garde du corps du directeur de cabinet du chef de cabinet du conseiller du kenn wante nag waxoon naa ko nag Macky Sall danaa ko nag man maay meeru Dakar te képp ku di ànd ak man képp ma liggéeyal naa def suma képp kattan booy wér su dee allah xeex ngeen fi Guy Marius Sagna anamu tey de ngi ci assemblée nationale su ngeen amoon tuuti xel ngeen xam ni fi yàlla kese moo fi nekk parce que xañ ngeen ko mu am salaire ci mairie de Dakar tey nag am na salaire ci ci assemblée nationale du Sénégal au passage tamit mais jaajëfal ne capitaine Touré. un homme pétri de valeur, un homme courageux et un vrai patriote. déco encouragé. encourager mairie de Dakar force spéciale à mon fils. Nous ma insister parce que nous nous lu ndaw que xam semaine dernière Ousmane Sonko Nous avons que wax wax wax ba Ousmane Sonko ñu dem de loolu moo taxoon ñu ko doon woo wante mbiru force spéciale bi na ngeen ci bàyyi xel bu baax a baax a baax walla mën a yem ci wax ci maintenant nag man wax naa ko waxaat ko je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle de 2024 donc jéem a xool naka la ñuy jéem a créer ay dossier bu Barthélémy Diaz parce que dossier Ndiaga Diouf bi apparemment maintenant ñëpp comprendre que li complot la dama ne mairie de Dakar ab une force spéciale à piscine olympique le plus fort am ci activités activités avec les différentes fédérations Il des citoyens qui citoyens ils considèrent peut-être qu'ils doivent développer certaines activités peut-être pour la promotion euh, euh, euh, comment dirais-je encore et l'émancipation de certains citoyens mais dit bien, Mais dit convoquer la directrice de la piscine olympique et non le maire de Dakar il faut wax ay force spéciale dama ne na wax ci leer lu ngeen nam ci man du am parce que fi am ne ko ñëpp déggee noonu complot bu ñu ci Sénégal bëgg galgal ay politique dëkkaloo fu ñu dëkkul dafa nar lay waxal une fois de plus le troisième mandat n'en vaut pas la peine parce que ça ne passera pas mbokk ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp di encouragé ñëpp di sakku ci askanu Sénégal particulièrement ci la jeunesse du Sénégal na ngeen taxaw parce que foofu la dëkk bi tollu tey mënuñu wax parce que wolof njaay nee na njëkk yuuxu daanaka da kon nak bu ñu yu wante fu mu nekk ni dañuy artu rek on informe le, les populations qu'ils sachent que l'heure de la mobilisation a sonné parce que vouloir liquider képp ku fi am yéene ci ëllëgu Sénégal ñu bëgg la dëkkaloo fo dëkkul bëgg la sosal ensuite jéem a dem wuti une justice qui en partie est totalement corrompue loolu mooy dëgg parce que l'ancien ancien procureur de la république qui dossier Ousmane Sonko dans une république normale à l'heure où je parle Serigne Bassirou aurait dû être en prison parce que nous jël de PV falsifier ab daan am le magistrat parce que nous avons des ci ci PV lu fait dans une république normale, c'est un parjure. Serigne Bassirou aurait dû être en prison. Quand Pape Alé bi ñu nous koy jaajëfee ñu ngi et au besoin nous lancer un appel à toutes les forces particulièrement les forces politiques il faut sonner la mobilisation pour exiger la libération de Pape Alé et la libération de tous les otages politiques du régime de Macky Sall maa leen di GNV, la grande nuit des valeurs, quatrième édition, avec le géant du live, Mohamedou Sekimelo Boussiri Moussavasi. Ça sera le vendredi 9 décembre au Grand Théâtre National et Kumboros. Cette édition est dédiée à Mam Al Maktoum à l'image du capitaine. Sekimelo, Wach. pas de vous abonner et la cloche de notification. fa am Tiwaawan muy police yi policiers yi di ko teg les conducteurs de moto Jakarta dañuy bàyyi nga ñëw gaare sax ñu ñëw rocc sa caabi dem koo xam ni nag njaboot la bàyyi di toltolaan ci biir Tiwaawan pour wut lu mu yóbbu mu ngi mel ni picc mu toog ci tàggam. war a dem wuti lu mu jox ay doomam mu génn rëbbkat bi fetal ko mu daanu jakartaa yi nañ leen bàyyi ñu liggéey parce que Tiwaawan du Dakar amuñu feneen fu mën a xëyee nañ leen bàyyi ñuy liggéey parce que ay père de famille lan beneen bi ci des monsieur le ministre quand sapeur pompier bu Tiwaawan ñan fay forme ci ay caporal ak ay yeneen ak yeneen ci armee bari na te quand sapeur ba melul nu kenn xam infirmerie ba boo fa duggee mënuñu la faa defal dara lu sotti sapeur yi ci boppam ñu waree dem def intervention parfois dañuy fëkk oto mu paan wala du mën daw pour man war ngeen a xool ngeen des mooy sànq sama collègue Assane Diop wax am police mais pourquoi yeneen communes yi nekk biir ngeen fexe mu am ay ay ay police parce que tu Tivaouane 18 communes de commune ñu ko fi gëna yaatu bari wul kon bayi len xel lool benen bi ci des fi may fi may fi may ñëwaat ci problème bi sama waa wax légui ni da ngay a ñëw tiwaawon yow ci sa ministère yow ngeen ñëw fa def fa acte bu ñaaw moy ben kilifa diine bu fa nek njabotam genn aduna ñu denc ko fa ngeen ñëw xaju guddi Nous sulli souligné ba taal fa ay grenade lacrymogène loolu bëgg ci tontu parce que keroog wax naa ñu ni question euh, euh, question écrite lay doon te banko ko dindee suul pendant presque une vingtaine de jours ñu sulli ko mu mel na meloon dañ ko faa waroon a delloowaat te xam du ay fa def le président du parti PUR muy Serigne Moustapha